waxlul uqdatam min lisaani yafqahu xawli bokki daara asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu noo ngi leen di nuyu fi leen daan nuyoo di ñaan borom bi yàlla nañ fi yàgg daje yàgg fee fekk ñi jiite daara ji sunu borom mi saa buñ fi dajee lu ci nekk ci tuyaaba mu tibbal ci góor gi tëdd fii a Cheikh Ahmad Saxiir Lo yàlla na yàlla di dotti ay leeram ci moom ba baa ñu koy fekki jógandoo ak moom yal na ko yàlla def ñu ngi nuyu sëñ Maxtaar di ko ñaanal tawfiq ak wér-gu-yaram ak képp koo xam ne kii yaa ngi ci liggéeyu daara ji nuyoo baa ngi ci loxol sëñ fàllu na ko séddale ñëpp jot ci di nuyu sëñ aas wajaahidu mbokk yi ci sama fukki minit yi benn dem na bu des juróom-ñeent dama bëgg a wax ñetti baat baat bu njëkk bi xanaa wax ne sunu délégation bokk na ci ki jiite sunu Alimran TV jamono yi ñu ngi koy génne en direct ci àdduna si yëpp muy soxna Fat Diallo wala madame Diop ndax liggéey bu mel ni ñépp a ko war di gis daa war di siiw daa war di yaatu ndax nun li nu am la kenn amut mbokk yi ñun li nu am la kenn amut ngeen baal ma ci baat bu naqari bi ndax Dakar daa bari poussière fan yi <laughs> dañoo wax ren taxawaayu ndaw ñi ak li leen di xaar ci liggéeyal pénc mi gis nga fi nu nekk aas ñi fiy ñëw la daara di defar ba def ci ñoom al yaxasa defar leen ba def ci ñoom al fikra fii defar leen ba def ci ñoom al basira defar leen ba def ci ñoom al ñu bëgg a départ mu jox leen almuhaasaba ne leen man ngeen a dem fii ku fi ñëw dañ lay pëkk pëkk ba ngay yeewu kuy nelaw du dem boo yeewoo ñu wax la loo fi wut boo fi jógee foo jëm loo fay fekk ku dul xalaat doo dem buñ ci jógee ñu wax leen ku laxasaayu wut takk sa ndigg doo dem sëriñ Abdoulaye daa séenoon gone ga kaalawu mu ne ko denc nga soxna mu ne ko déedéet mu ne ko dindil kaala gi te def ko ci ndigg li boo takkee jabar ba am juróom benn weer te wëccoo ko bu la neexee kaalawu ni ñépp ku fi ñëw dañ lay yee ba nga am al asmu te mooy dogu fas yéenee dem booy départ ñu yóbbale la almuhaasaba koy dox say jéego at mu jot da xool jéego yi nga dox gum fan la toll mbokk yi loolu la daaray def <laughs> moo tax ñi ci jaar koo ci seen muy waaxu danga naan ku matuta nga nee waaye waaxoo moom moom ma ngay wuti garab gu la faj pharmacie la jëm maa la ko wax yàlla yàlla dimbali loolu mooy cinq minutes yi ma tënk ko foofu yeneen cinq minutes su ma ko waxee xam ngeen ko su ma ko wut xam ngeen ko daanaka no comment mooy su ma masaan taxaw fii dama daan laaj mbiskitum gone yi léegi gone yi dañoo màgg bëggatul mbiskit gone yi dañoo màgg léegi bëggatul mbiskit ab milliard lañ bëgg amaguñ sept cent millions fii ma taxaw nag bu ma amul un million duma ma joxe micro bi képp koo xam ne kii nag joxe nga ci bu déwénee yàlla na nga ñëw ku joxe woon nag ñaana lu ma la bu fi kenn indi cinq cent ak i pièces yooyu ñaar soxlu ci dara alaaji aas xaaral moo ñil ko alaaji aas tegal ma fi yëfi alaaji aas dama ci bëgg a dellu siwaat toogaay bu njëkk bii bëgg naa lu bari jóge fii ak toogaay bu njëkk bii. kan la. ah bien ça. kon maa ngi ci trois cent. bu kenn sori ne dama sori. bu kenn jege ne dama jege. ku yóbbanti it mën naa ñëw. waaw kay DC DC TV. bi may nuyoog Cheikh Mokhtar léegi nag la naan ma gone yooyu ngay wax dañoo neex a yónnee day léeg-léeg ñu ñëw fii aatu jërëjëf mu ne ma gone yooyu nga wax ci rajo bi ne dañoo neex yónnee léeg-léeg ñu ñëw fi wax na dëgg dafa am gone gu du weef ak gone gu tudd orange money ñaari gone yu sawar lañ te doo leen yónni mukk ñu jàddal ko gone yooyu jox ma 526 75 97 sama soppe loolu nag mooy yéen ñi indigut laa wax waaye yéen ñi fi nekk moom gone yi teel na waaw jërëjëf baax na lii maa ko moom eh, sëriñ mbuub moo barkeeloo takk bi as ndaw barkeeloo takk bi beneen takk bi xaw ma ko ko barkeeloo ndeysaan yaa ma gën a nogoy koo sopp sopp na la waa kay amin xayartu xayartu gis naa fi léegi benn sëriñ it nag ñaari sëriñ sax sëriñ Basiiru bu Cheikh Awa Ba maa koy séentu borom toogaayu rafet yi ñoo andi lii del mbokk yi ku ñëw yàlla na nga ñëw ñaari minute moo ma dese nag signore signore yow ñoo bokk yaay jëlal lii muy def ci mbaxana mi te ngeen ñëwaat mbokk yi bu leen defee ne lii daaray kokki di laaj amul fu mu tege ah kay as sunu borom daan wa anfiqu wa anfiqu wa anfiqu nit ñi te ticc mu ne man sala si yuxridullah lebal leen ma bokk waaw nit ñi dañoo naqaree laaj. waa Thiès Daaray Kokki ñëw leen. ñu ngi lay ziar. sunu borom naan wa anfiqu wa anfiqu wa anfiqu nit ñi te ticc mu ne ma mu ne masal la si nun fi xoona ticc mu ne léegi lebal leen ma bokk man dal la si yuxidulaa xardan xasana xardan nag la xasana aas sëñ Lo xasan xasanan mooy yàlla soxlawul ko koy lebal juróomi dërëm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 gaaw leen gaaw ngeen woote si 77 251 04 05 Tawfekh Production le leader dans son domaine. ah am lépp tawfeex sëriñ bi mën a may. gën noo gàtt noo